jëf mbokku internet yi Bprod Media Feeling Dakar MDTV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, ba léegi ñu ngi fii Ndindi kër sëñ Abdou Karim mu sëriñ Fallou ñuy waat ñëpp ci màggal gi rek waaye nag mbokk yi xam ngeen ne dañoo màggal si ak tiis ah, dañoo màggal si ak ndax suñu frère ñu bokk dëkk Pikine muy Aziz Dabala Abdoul Aziz ñu gën koo xam ci Aziz Dabala information yi ci internet bi démb ba léegi wër na partout dans le monde. ñu ñëw tasi feek koo xam ne moom tam suñu frère la suñu nit la ñu bokk liggéey bi muy Fadel bu Dakar Buzz boo gisee nag ñu bëgg cee waxtaan ak moom moom mook Abdou Aziz ñoo bokk dëkk ginnaaw raay Aziz di rakkam nekkoon frère am nekkoon nit ku baax kon dinañ ko jël mu jotal kàddu yu njaalam ñu waxtaan ci xew-xew bi xew Fadel ñu ngi lay nuyu di la bu baax ci màggal gi di la masawu it li ñu bokk. jërëjëf Mbaye maa ngi lay fay di nuyu ñi seetaan ñëpp. di la masaw ñoo ko bokk mhm. Aziz moom yaakaar naa ni képp ku nekk ci milieu showbiz rek ñu ngi la koy jaal mhm. mooy nit ku baax nag koo xam ne liñ xam ci jot xam ci moom donte fréquenté woon ko mhm. du ñuy demlante du ñuy dikkalante li xam ci moom daal mooy jàmbaar la euh, wax yàlla bari na clip yoo xam ne mi ngi génn yëpp moo koy joué mu gurbam mu nekk xale bu am talent yàlla ñëw ndogalam nag lii képp kuy doomu aadama rek wax dëgg yàlla yaa ngi koy naqaarlu mm-hmm. mm-hmm. mais peut-être yàlla moo ne woon moom ak dundam fii lay yam ah, di ñaan daal yow wéy juróom yàlla may ko xolu muñ te yàlla gën koo dëgëral parce que euh, ku ne la sa doom dem na ci anam bi dinga am loo yëg mm-hmm. mais nag sant yàlla ndaxam ne yàlla ay dogal te yàlla ne woon fii lay juddoo waaye fii lay demee mais bu ñu ñëwee ci Aziz ni nga ko waxee mu nekkoon nit ku baax noonu lañ ko xamee mais ci fee bi Fadel la ah, lii commencé am ci sunu réew mu nekk lu doy waar gis nañ ci bërki démb Thiès ah, ci lu xale boobu ci moto bi ba mu mujj rey ko ñu taal ci kenn ka ah, une semaine après lii xewaat ci Aziz ci suñu réew yi tàmbali am Sénégal dëkk bi ñu ko xamee woon. waaw mooy jikko yu yàq ndax yi ngay gis daawoo ko gis. bu njëkk ba mosaan a gis dégg ñu ne diw dee na koñ bee sax yow sax da ngay wiiri koñ. ndax ragal ko. waaye jamono nag sëñ waa waxoon na ko. nee na jamono nga ñëw ñami jëj doy do dund. toll foofu léegi rey dama xamul Burundi la nekk walla Rwanda la nu nekk wala fan la nu nekk parce que xam naa nga feebar de xam naa nga génn oto mbëkk la de xam naa lay nga reer ba suur tëdd de yàlla raye ne nu ne waaye fekk nit ba ci fi ñu ko waxee den ko fekk ba ci biir këram jëf ko loolu moom muy lu day waar loo ne nit ñi nag bu fekkee ban sécurité bi insécurité bi am na ba ci biir kër yi kon fu nit jëm parce que bu njëkk bu nit mësaana liggéey ba wàcc daan naa profité daw sama kër balaa moo guddi. Mhm. boo duggee si kër dangay jàpp ni mucc nga. Mhm. waaye bu dee nag lii xew si biir kër la lay fekk moom. kon moom xamatuma ko mbedd bi tax koo saf. Mhm. mais toujours rek ak di wóolu nañ suñu justice. te gis nañ ne ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne képp ku def yu mel nii. balaa def 48 heures ñu teg la loxo. te am na nañu yaakaar ni euh, yoon mi ngi def liggéeyam. te dina ci dekk mesures yi nga xam ne moom la ci war a def. waaye di ñaan daal. bu buñ jàppee jëf ji ñi leen ñu ko def hmm. nan leen teg ay mesures yu sévères leen teg ay mesures yu sévères parce que leen ñi itam xamatoo lu muy nuru man waxuma sax waxee Aziz hmm. waaye innocent bi nga xam ne tey démarré na ci âge bi mu demee mooy li gën a metti nit ñi man démb rek am na ñu bëri ñu ma woo ñu nekk Amérique hmm. boo xee ñu ne Fadel ay waaye xale bi liy xew senegal xale bi xale bi te daanaka nit ñi sax taxuñu koo miin noonu mais mm-hmm. sénégalais moo bëggul lu lu lu metti mm-hmm. muy lu àdduna bépp di naqarlu mm-hmm. di waxaat encore une fois yaayam daal yàlla na ko yàlla gën a may xolu muñ yàlla dëgëral ko waaye daal ñi ngi xaar yoon def liggéeyam te xam na ni ak suñu justice non kenn mënta kenn mënta rëcc. coow li bëri na biir Pikine boo nee ma kaa ñu dem dama naa la Pikine am na lu fa xew lan moo xew biir Pikine fa dem. waaw Pikine li fa xew mooy jàmm. ak salaam ndongo looy wax na ko xale Pikine doonoo bëggante boo laalee kii laal kee mhm. loolu moo xew ba te pikin génnul pikin te yaakaar naa ne rey yi ngeen di dégg mhm. ah, moom mooy xew mooy xew Pikine mhm. mooy xew yeneen xanaa kay li nga wax mooy banlieue bi parce que ah, démb maa ngi koy wax ci univers benn NTV ba ma tàbbee Dakar bés ba léegi ah, mën naa ne dee yi ma dem yëpp ci banlieue bi la entre Pikine ginnaaw raay yëmbal mbeddu fas Malika Boune yooyu rek néew na nga dégg ñu ne diw dee na dañ ko rey ña ngi ko rey Fann Résidence ña ngi ko rey Sacré-Cœur yooyu rek lan mooy problème bu banlieue bi dafa rab bu dugg banlieue bi wala lan la wala nit ñoo dem ba léegi mm-hmm. rey ñi daal comme dugg ci boutique bu jënd seddoo mm-hmm. mais ñii ñaan daal yàlla mën a sàmm sàmm nu mm-hmm. ba kenn ku nekk nga mucc ndax tax am sa kër tëj ko taxul nga mucc yor soo tax dawal taxul nga mucc kon yàlla mën a muccal ñaan yàlla muccal mais Pikine moom la fa amoon démb moo fa a tey mooy bëggante jàppante bennoo di dem lante di dikkalante lii nag moom moo moo moo lawtaan ci banlieue bi ah. partout ci banlieue bi da koy dégg tey fii suba nga dégg Kër Massar keneen suba nga dégg Géejawaay Parcelles Boune Mbedd Fass Malika yooyu nga koy déggaat. wax ji def ko doon wax ne ko dégg dafa déggante ak Aziz le samedi xaw ma le dimanche. après ñu ñaar mënuñoo déggante ba aadama jot ay révélation jot ko cay def dafa mel ni waaju ko def dañ koo jàpp de lu xew. waaw euh, déggaguma loolu nag mais xam naa ni ne ak action justice wax naa la ko nii wóolu naa police yu Sénégal ni képp ku def yu mel ni daan la teg loxo ndax am na fee yu fi jaar yu mel nii quarante heures ngay dégg teg na loxo moo tax euh, bu dee jàpp nañ ko alhamdulilah bu dee jàppaguñ ko moom xam naa ne ak justice Sénégal moom góob mu rëcc waaye maa ngi daal ñaan daal bu ñu ko jàppee li yoon war ci moom ñu def ko ci ba mu mat sëkk ndax lenn waaw jàkk wax naa ko waxati ko gis nga lenn li il faut que yàlla moonu sàkk moom na te dafa indi loolu nan koo indi ku def ñu def la parce que après loolu moo lay tax a mucc mais ak bu ne quatre-vingt-quinze musulman xanaa vraiment nag war nañu appliquer peine de mort nag ay xam nga loolu ñu ngi ko fi doon wax te Sénégal balaa ñu wax loolu rek peut-être yu mel ni am yu gis ngeen bi amoon Pikine xale bi ñu reyoon ci ci ci ci ci ci ci lii ba mil service ba. waaw waaw waaw waaw. après ñëpp wax peine de mort pen de mort après loolu quelques jour après loolu sedd ñu bàyyi baat. ñu bàyyi mu sedd buñ reyaatee ñu waxaat rek te duñ ko appliqué. Mm. mais gis nga li waa Thiès def. Ah. neexul ci xel neexul ci xol <laughs> waaye loolu. man de ah, ànd naa ñu bari dëkk bépp dañ ne lii lii tubaarkàlla. ah parce que dab nit di ko agressé. pour lan mu fippu. nga ray ko nga ah, yóbbu léegi gars yi jàpp la. def la noonu rek. waaw c'est simple. nga dëkk Pikine xew ñëpp xam nañu ko. technopole bi dafa nekk loo xam ne poson la biir Pikine bari na yu fa nekk ñu fay dégg temps sa vidéo bi nga jëloon cakatu bi bari na fa leneen ak leneen ba liy xewaat fa yan matukaay la ñu war a mën a jël pour mën a saafaraal li ni mel. waa xam nga sensibiliser sax xewi na moom ndax mënatul si ñoom dara. yoon def liggéeyam. di circuler vingt quatre heures sur vingt quatre. identifier nit ñi. ba pare étranger yi nekk ci dëkk bi ñu wax ci. Mhm. kun dàqe sa dëkk nga daw dikk ponkol mu toll ni yow di yalwaan ci furus yi di yalwaan ci angle koñ yi te xamu ban xeet lanu li ñuy làkk sax doo ko xam ñooñu dama bëgg état wax ci ndax yalwaan gu métti lii fi Sénégal rek la am Sénégal mel ni rido may ga ku ñëw dugg te ñuy relwaan yaay ponkol mu gunjëm partout ñu gumba wunu làggi wunu ñooñu war nañ cee njëkk a wax ndax sénégalais bu génnee fi tey bëgg dem ci benn dëkk pour mu dugg dana daj ci métti pour sax ko dugg sax bëgg a dugg dugg wóorutul loolu te bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li indi si insécurité bi ñiy dugg di nga leen xam te lii nga dox ba dajeeg nit boo xam ne da nga xam doo xam ban xeetu ah, wax li muy laaj sax doo ko xam léegi luy problème hmm? léegi nag ah nanu fexe nag léegi ñu njëkk a wax ci loolu insécurité bi am ci banlieue bi bari na fi yàgg na fi te buñ ci waxut hmm. mën naa jur leneen te nag ñun ay banlieue saa lan juddoo banlieue yaroo banlieue doon nitu banlieue hmm. mais da ngay dem ba sax da ngay tiit heure bu ne ngay liggéey heure bu ne ngay waaj mais lan mooy nit di def fa mucc temps yoon police mi ngi circulé mais li ko li ma ci gën a bëgg ñu invité ci mooy indi eh, mooy mooy étranger yi nu rax nan ci wax Sénégal y a ko de étrangers yoo xam ne xamuñu leen xamuñu fu nu jógee dañuy ñëw rek dugg jël appartement nekk fa doo xam lu ñu fay dund doo xam lu fay nekkee bu ñu demee nag ba ci benn instant bi ñu def jëye taal dëkk bi def ab ba daw delluwaat il Sëñ Abdou mu bëggee defar Touba daa raxas Touba segg ko. Mhm. ñu naan sëñ bi ñu sëñ bi daa soxor daa dafa nangam mais tey lool tey bokk na ci li dimbali Touba. Mhm. te Touba bi te amoon na ci melokaan boo xam tey bu fekkoon Sëñ Abdou Lahad taxawul taxawaay boobu kon mën naa doy waar. Mhm. mais Sëñ Abdou def daf koo segg wan ni ab Touba dëkk bi borom dëkk bi lii la fi bëgg nii lay doxee. tegu ci yoon. ñu jàppale ko ci ba tey Touba bokk na ci deuxième ville du senegal lépp lu nit di wut mu jafale boo fi ñëwee am ko fi mais ci ak njub ab dëkk soo ko bëggee defar da ngay tàmbalee ci kuy dugg nga xam kuy génn nga xam ah, ah. loolu mu ne dimbali waaye bu fekkee daa bëgg a mel ni Rouda Maïga ah. ah day métti de ndax tiim moom seen ab sénégalais xamu ko. man yi may dégg mbay damay tiit sax man ginaar sax du ma ko rendi man tabaski dan may rendi sama xar tabaski masaalikul jinaan laay nekk mhm. sama xar dan ma koy rendi man ginaar sax du ma ko rendi mbootee dugg sama néeg sax ma ne kay kaa rey ko man du ma rey kon bu ma dee dégg yenn yi dama naan man est-ce que ñii dañuy lu la la bokk dañ ko def ci la dëgër gi nit ñu di ko banlieue bi nit di ko naan bokk muy sopp seen xel yeeg sopp ci lu doy waar parce que xam nañu mm-hmm. defee ci mbedd wala feneen ak feneen mm-hmm. euh, parce que artistes ñoom bëggantewuñu tey xool li ne mel ñu bëri ñu ngi naan noon la mm-hmm. wala Aziz ñan la joteel wala nekkul ci lobby yi nga xam ne tey jii ni bëgguma sax tudd tur bi doy na waar de li la waaw xam nga mënoo xam xam nga nit moom bu yi amee version bu ne ni nga ko dégg mais comme xamuñu te yoon xam naa xel ne xarañte neen xarañte goo xam ne kii def lii wallaay du yàgg di dinañ ko teg loxo mais mën na koo cité ni diw la mën na koo cité ni kii la comme xamuñu te lam na ci loo xam ne yoon na ko moom nan déglu yoon xam naa ne xel ni ah xaw ma ko sax xam nga man yàlla damaa dimbali milieu yooyu milieu théâtre du ko seetaan man social bi daf maa doy ba lu ci bëri xaw ma ko bari nañu ni coow sax te xaw ma leen Aziz li tax ma xam ko parce que doonoo dëkk ginnaaw raay waaw mm-hmm. ah, ma mujjee koo gis mm-hmm. bi booy bi bi ñu rey booy bi ginnaaw raay mu ji def interview te yaakaar naa nit ñi gis nañ ko mu wax ci ndeysaan moo tax daal ma ñeewantu ko te même bu dëkkul woon sax mm-hmm. te mu dëkk feneen sax ku gis ni mu demee di ko ñeewantu ñeewantu yaayam ñeewantu sëram ñu ngi leen di masaw mais wóoru naa sunu justice ni lépp lu mu bëgg xam mu ngi ci tànk yi te dina ko xam loolu moom am naa ci njort bu rafet yàlla ko yàlla yërëm jërëjëf waa Feeling Dakar ak euh, ak ñanaat Bpro ak MDTV fexe woon naa ne woon naa du ma wax ci lii mais fexeen ba ba ba waaye ah. mais comme noo bokk liggéey bi di dëkk ginnaaw raay di doomu banlieue ñu nekk banlieue nan ko ñaanal mm-hmm. te ñaan daal yoon def liggéeyam te bu ñu defee ba loxo ñu def lii mm-hmm. yërëm naa ñii de. Ah, waaw waaw même <laughs> parce que ñoom xam na def ñoom li ñu def sax xamuñu ko. li def xamuñu ko waaye yàlla gis na lépp. Mm. yàlla yàlla leeral lépp. ci barke Serigne Saliou.